sans espoir. ca mbokk yi ba tey rek comme niñ leen ko waxee ginnaaw bi ñu nekkee ci hôpital bi ñu jël Zoss dañuy jël ki nga xamante ne mooy Boy Faye ànd ak Zoss ci wàccaay bi ànd ak Zoss fi nga xamante ne mooy hôpital fas yéene wax ak moom li xew ca géew ba am na lum ñu wax mais tungu ne du teew ñuy nataal ndax nee na sos dañ koo sànni li nga xamante ne mooy 16 xaw ma de booy fay maa ngi lay nuyu di la ziar di la masawu coono. leen di nuyu yéen ñëpp di seen mbokk internet yëpp di leen bëggee di leen ziar di leen ci coono yi ngeen di kii nii waaw ngir àdduna xam daal waaw. noonu la fa demee daal. macha allah booy fay tey ñu gis la ci beneen facette. ngay dem di ñëw di jaabante bés bi moo toll noonu wala zos lu la lebal la wala tey ndam li da ngeen ko soxla woon lan moo xew combat bi moo toll noonu zos tey waru woon laal suuf euh, ginnaaw bi problème yeeg polémique yeeg signature yi coow yi waxante yi takkaay bi lan la takku bi nga takku tey di dem di ñëw tey sama mbokk yi nga ma doon jox tey pëli waaw noonu noonu la noonu la xam nga doomu aadama li ñaan koo xamul noo koy def ni mu la defa tax moom muy moom muy rakam Garga Mbossé teraanga lañ mos a dund moom la ñoo mos a ji ndaxte même suma waajur bi muy dund sax bu ma demaan Maroc sama ginnaaw bu feebaree ñooy jël oto yóbbu ko hôpital taxaw ma sama ginnaaw taxaw ma sama kanam lu ma xew la mosuñ ma xewal dara fu ma taxaw fekk nañ ma fa keroog bi ma gaañoo sama làmb comme ni ma ko indee nii tey Zos noonu la duggee ci biir oto bi indi ma fii nii ñu rajo. def lu ñu war a def. kon boo ko fay. waaw loolu la waaw loolu la àdduna. noonu lañ ciy àndee. Mm. te bon mu nekk gor nag nekk jàmbaar parce que yaakaar naa li ko dal démb am na jaam ñu doon jal duñ dem bëri ji. Mm. parce que jamono boobu fekk na oto yi génn nañ ko ne dem wuti si jëli bagage nangam moom am na fu mu war a dem boobu oto bi mu war a yóbbu sax déplacé wu na mu jël benn booy jël moto bi dem ba ci Malibu bi. kon ñi naan moo ko tey yàq làmb ji moo ko tey di dawal moto veille combat lan ngay wax ñooñu kon. non dañu xamul rek parce que àdduna àdduna fenn wóorul da ngay sa kër ba mu rafet dugg ci biir kër gi di nelaw sa njaboot dal bi wàcc sa kaw yooyu amul. fii wóor wóorul dégg wóor yooyu amul. teg ci deuxièmement lenn moo ci am moom mooy waroon waroon na jëli bagage yi dem na ànd ak booy bi benn taxi coupé leen ñu daanu. bi mu ñëwee bële lu lañ ko dóor. même loxo waaw ci même loxo bi boo xoolee fi mu ne nii photo yi di nga gis ni kudd bi dafa néewi ci épole bi épaule bi fii ci ci devant bi nii dafa néewi parce que fa la ko weñ bi daal. adduna lay yaakaar naa ku dee ak sa bàmmeel des fois nag mun nga génne ñenn ñu ne da ngeen di da ngeen di euh, sa akkulaay tàllaay waxal ak nit ñi sa akkulaay tàllaay ndax li ngay wax lu leer la lu wér la du loo xamante ne da ngay défendre jos da ngay wax sa digganteeg sa boro waaw man xam naa ne liñ naan liñ naan loo xamante ne dañ koo gis gis nga ko léegi tegal ko sa bopp sa bët ñun maanaam nit lañ ñoo xamante ne nii ñu ngi nag ci milieu làmb mais ñun Bousso lañ sant guddi gi njëkk ci biir bàmmeel xam nañ xam nañ maanaam lenn melut ni moom ci àdduna. Ah, bu ñëwee donte aada dina ko daan dinañ gis beneen facette bu bëre Zoss bañ ne aada daan na ko wala Zoss daan na aada. waaw mën naa ne parce que xam nga aada champion la. mbëru làmb la mbëru waada la kenn du ko bañal li mu doon champion la moo tax mu bëre ak Zoss. mais benn affaire moo ci am li ci am ba am ci noonu la fa demee mooy maanaam tey jii nii Zoss ni ñu waajee làmb ji Zoss da cee yëg din teewoon pël bay bugg dee deux mois ferme boo xam ne. Ah, kon combat bi jaraloon na. billaahi wallaahi da doon sëfu di ma sëfu barki Mouhamad di yëg din. kon gaa yi doon wax Zoss da doon sëfu bi dañoo réeree. wallaahi da cee entraîné Zoss dafa yëg din ba sonn sato doon an jóge entraînement xëppoo ndox dem ci gii gii mi ngi may dégg doon dem bi entraîné ji ñaari sàll ne ko doon dem ci gii di dem GFC di fa entraîné combat bi lu mu fonkoon amul fu ñu parce que tey jii làmb dañ boo ko jëlee dangay ànd ak say mbokk dem fi nga yaakaar ne fa nga mën a ñaanloo entraîné li nga yaakaar ne doy na la ci doole pour nga mën a jëflante ki nga war a jëflanteel. léegi ñu dégg ci ay rumeur combat bi Zoss bu ko bëreewul day am problème saisir nañ ko au niveau du procureur bu bëriwul day am problème dañ koy plainte yooyu yëpp wala ay rumeur la rek. non yooyu bëri na ay wax yu sew yuy génn la yu nit ñi di wax mu nekk ay écho ay doomu aadama di wax nii nangam ak nangam mais gis nga àdduna yàllaa ko moom am na yoo xamante ne mun naa ñàkk. dégg ngeen ko la dégg nañ loolu lépp dégg nañ ko. mais lan ngeen di. mais dégg nañ ay non bu bëriwul bu paree dañ koy plainte dañ koy tëj dañ koy lii dañ koy laa te am na yoo xamante ne mun naa ñàkk daal tëj ginaar lañ koy def. benn deuxième chose li ci mën a nekk mën a nekk lenn la gis nga làmb ji dañ ci nekk ñun ñëpp bokk li ñuy def kii tëgg ak kii bëri ñoo yem ñun amuñ ñun waaw ak kiy wax parce que ñun jël jóguñu pour jël benn intention jël làmb lay di bëri tey jii nii amul mbër muy bëri te amoo benn blessure bay bëri waale sportif au niveau boo gis am na loo xam ne faj na ko mu wér am loo xam ne wéru te mi ngi ci yaramam waaw kay mi ngi koy sooxaale Zoss bëri na erreur wala bëriwul erreur ci ban facette nga ko doon xaar ban fànn nga ko doon xaar lan nga ko doon xaar mu bëri ak Ada Fass ni mu bëri baax na waaw wala de non tey jii nii bëri bi normal na mais ni mu waroon ñëwee 100 pour cent du ñëw parce que nit dafa am cër yoo xam ne ñooy mottali doomu aadama te cër yooyu noonu suñu borom def na dogal bi mu ci dogal ba li mu ci bëgg dëgg defu ko ci. parce que dugal na ay naax dóor épercule fi mu dugal loxoom loxo boobu ci la blessure yëpp nekk aada ci ginnaaw Senghor bi. mu daw na day képp dàng bi aada saaw ko faxat ko mu romb mu delloo ko action bi noonu la fa demee am na loo xamante ni mënul di mënul di nekk waaw mënul nekk tey jii nii doomu aadama bu ci nekk bu la pusa jamono rek nga xool ni pusa bi di def fi mu la ko jam <laughs> métit métit la noonu la fa demee am na lu nga koy muñ bëre waale ko rek mais métit la ci yaramu nit la ne am na yeneen yu nekk ci kanam yeneen ak yeneen ak yeneen tey jii nii mi ngi entraîné mi ngi koy teg ci yoon bu entraîné wul woon fooy entraînement dama waxoon na ko sa waay te nga bàyyi làmb ji xool loolu ko ni la dañoo am hygiène de vie moom i ni carrément mbëru làmb yi ñuy coow naan mbëru làmb mm-hmm. ah, demee quoi ci booy fay maa ngi lay jaajëfal comme que da nga ànd ak malade te instant lay jaajëfal ma lay bàyyi suñu mbokk internet yi bu ngeen demee ba tane mm-hmm. dinaa ñëw ñu waxtaanee waat ko waxtaanee ci sa carrière mm-hmm. ak say supporters. ak sa digganteeg promoteur yi sa digganteeg say adversaire maa ngi lay jaajëfal. incha allah amul benn problème yéen ñu ngi leen di jaajëfal parce que yéen fu làmb toll. dañ leen ko war a sante gërëmee leen ko. parce que ba heure bii nii tey jii nii ngeen nekk ci seen liggéey yéen li ngeen di def nii mooy li yàlla bëgg. ni ngeen di def daan doole la quoi vraiment. waaw nañ ci yéen une ngeen nekk ci seen liggéey nii. waaw du duñ def lu sant leen gërëm leen te xam ne fu làmb yegg tey ba nit ñi di ko seetaan. waaw ah, loolu grâce à yéen la. ñu ngeen koy sante bu baax di ñaan suñu borom dolli fi jàmm arafasel na ko ndam li jik waaw làmm noonu la amul benn problème ñu ànd liggéeyaat ñun ñëpp rek xam ne lépp ci kanam. ay ca mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di jaajëfal di leen kontaane Boy Faye la woon xam naa ne damay bàyyi ba lépp rigg rek ma dem seeti ko ñu waxtaanee ko di leen jox dig daje ci beneen daanaan beneen champion wala yeneen daanaan yeneen champion Ziza jaajëf.